asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu topp ci internet bi ak ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu ku ci ak sa sant di beral nuyoo nag ñi nga xam ne ñoo abala ci chaîne bi comme niñ leen koy defalee saa yu nekk rek di leen indil ay tegtal yu ngeen mën a jàpp ci gént ngir mu nekk loo xam ne lu leen di jariñ la ak ci wàllu tegtali xam-xam. tey nag dañoo dikkaat ak yéen ci gént or gént or ak gént xaalis wala gént xaalis bi nga xam ne moom la ñuy jaayanteek jëndante gént or nag ñaare tàmm wuñ ko ci gént tàmm wuñ ko ci gént li gën a bari naqar lay doon gént xaalis ko gën wala gént weccet nit bu géntee yor or ci loxoom wala bari na ci ñoo xam ne tawat lay doom ci lay doon ci ñoom wala naqar tawat lay doon ci ñoom wala naqar bu fekkee danga nga gént di gas ba jot or loolu mën naa nekk looy sàkk loo xam ne da ko jot waaye ginnaaw bi da nga ci am naqar mën naa nekk soxna jëkkër wala leneen wala doom soo géntee yor bañi or loolu feebar la bu fekkee danga gis kër goo xam ne dafa nekk or maanaam tabax bi yëpp nekk or ñaare boo bàyyee sa ab diir da nga fa dégg ak lakk ci kër ga maanaam ak lakk góor tamit bu géntee ñu takkal ko ay lami or kooku boo deful nànk dina am gàllankoor yu métti wala ñu tej ko kaso ñu géntal mooy nga gént ñu takkal ay lami or loolu ak jëng la ay monot la bu dee xaalis nag ñaari moo gën or moo xam dang ko far wala ñu jox la ko loolu daraja la rawate nag jaaroob xaalis yooyu yëpp ak pal la wala doom wala jabar wala jëkkër bu dee jaaro yu bari moom alal la bu fekkee danga nga gént weccet comme pièce yi ñuy jëfandikoo loolu tey siilul asir la loolu mbir yu jàppandi la maanaam jafe-jafe yu dañ la wërsëg wuy dikk la muy gént faru xaalis su fekkee këyit nag mm, comme kayit yi nga gént ñu tegal la ay paquetu këyit loolu bari na ci ñoo xam ne bu dee xaalis it du nekk xaalis bu bari maanaam xaalis bu néew lay doon daal xaalis weccatu ko gën wa illaa nag nga gént ñu tegal la ko ci duus loolu moom bu boobaa mën naa nekk xaalis bu baree bare bu takk buy ñëw léeg-léeg nag nga gént mel na da joxe ay weccet jël ay cent franc di ko seddale wala yooyu loolu moom sarax lay doon boo xam ne euh, dañ la ko wan nga war koo def kon mbokk yi nii daal ci ab tënk euh, ñaare bariwul la muy randu ci gént or na gént xaalis euh, di leen fàttali ngeen woy di ci chaîne bi nax bokk na ci li ko li koy dundal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.